waaw ñu ñëw Pape Balla Gaye 2 il faut que ñu wax tamit ci combat ba Gaye bi <laughs> sama xol sedd na waaw démb dañoo tasanteeg entre Boy Niang et parce que ku bëgg lool objectivement mënu analyser waaw Pape Balla Gaye Pape Balla Gaye boo ko moo xam nga ne fan si la mais démb lañ def benn reportage euh, ba def sondage ñu tasanteeg kenn koo xam ne mbokk Boy ñaa la mu ni fii mu toll Boy Niang maanaam maire maire Guédiawaye lay dem jëli maanaam bu yóbboo waa Guédiawaye fal ko maire parce que daan na ñëpp non daanul ñëpp daan na ñëpp kooku daanul ñëpp. mais boo tuddee Sa Thiès oh mooy géejawaay presque. Sa rek nekkul géejawaay te man la problème mooy que man damay dégg ñu naa boo ñaan li mu def géejawaay mais Balla li mu def Pikine nag est-ce que Balla li mu def Pikine wax nañ ko. ko il faut qu'on revienne sur terre analyser les choses yoo xam ne dañ koy teg ci yoon. parce que bu nee booy Niang li mu def Pikine war nañu Balla Gaye li mu def pikin Balla combien de fois la dugg Pikine def fa jaloore Boy Niang combien ak ak adversaire ya mu dajeel bala Gaye loolu ngay xool ba pare bu ñu waxee loolu ba pare ñu door a xool Boy Niang waaw. mais sax xam ngeen ni booy bi ngeen dajal booy bi xale la fu mu toll nii am na doole lool ko face à face boo gisee sax mu ngi xëxëtal kii di bala Gaye 2 bu Balla sax waxul. bon lépp conseil la. parce que peut-être Boy Niang dañ ko digal ne ko Balla na ko fexe ba gagné ko ci communication bi avantage la ci loolu lañ ko gëmloo Boy Niang boo la Balla dañ ko teeloo boppam. aussi Balla instant yi ko bi mu naa Boy Niang bul ma laal li tax Boy Niang laal ko bàyyi ko ci biir Balla xam ngeen du yàq bis Boy ñaar d'accord du yàq bis mais Balla dafa bëgg a taaral bis bi moo tax bi Boy Niang mu bàyyi ko ci biir ndax bee Mbengue gor la. ah mais Balla loo doon def chaque jour nag. mu ñëw Gaston Mbengue gor la xëy na peut-être dafa dem un certain moment parce que Balla Gaye ne yab ma sama supporter xam nga combat bu nekk ak ni ñu koy abordé xëy na combat bi looloo la laaj. boobi nag champion la mais bu fekkee man maa koy conseillé maa nekk euh, euh, place ñi koy conseillé danaa ko wax na liggéeyaat d'accord mi ngi liggéey mais nag ni muy communiquer baaxut parce que lamb dañu ko war a tàtt lépp ay violence lay indi te lépp loo xam ne day indi rek ku ne nga ko éviter sa réew. loolu doon def gars te bii daa woon am. wax naa xam naa loolu wax naa leen moom la doon def xëy na combat bi moo ko laajut waaw parce que nii bu doon def benn affaire ba yàgg mu wàcc yow war ngaa moytu lool Balla kenn musu xam Balla Gaye yàq làmb Balla Gaye musu yàq làmb Balla da doon jaay combat mais pas yàq làmb Balla Gaye boo tëggee combat am tey yaa ma dégg ne 5000 francs laay dagg billet bu Balla defee face boobu daggee 15000 francs nit ñi jënd billet day jaay làmb te li wax nii promoteurs yi boo leen laajantee li ma wax la ñuy wax. parce que nit ki mun la fay ay ay ay millions sa nawle liggéey fay la ay millions nga ñëw face à face mel ni conférence mel mel ni mel mel ni conférence fii du daara du conférence fii sport la. ñu jàpp ne Balla Gaye la war a bëree ak kiiri di Boy Niang. nu mu war a bëree ak Boy nu war a bëree ak Boy Niang ni mu a bëree ak moom bëgguma ko wax fii ndax man maa nekk dama man li maa nekk place su Balla parce que moo waxee ni bëre bëggee boo ñaa rek mën na maa yàq lu bëri parce que secret Balla du ko wax ni war a bëre boo ñaa du ko wax ma toogoon ak Balla dinaa ko wax mais duma ko wax publiquement ni war a bëre boo ñaa non du wax ni war a bëre boo parce que secret la lu lu ñuy wax publiquement secret la nañ xaar jour le jour ji bu ñëwee tout sera clair ah ku neex ku neex nga ne pare naa waaye bis bi ci kàttan yàlla na yàlla may fekkeek tal li may ñaan suñu borom yàlla na ñu may fekkeek tal Boy Niang doomu Sénégal la Balla gay doomu senegal Sénégal na ak Guédiawaye ñoo bokku ndey ak baay waaw Boy Niang mosuñu xam mu yàq làmb jàmbaar la Balla Gaye mosu yàq làmb ñaari doomi réew mi la ku daan doom liggéey waaye nag man à 100 pour cent Balla à 1000 pour cent Balla Gaye 2 la amul kuy takk ngemb ci àdduna ba may ma la ak Balla Gaye 2 du ma lay ma léeg nit Balla Gaye du koy ma léeg benn mbër boo Niang champion la ndaanaan la parce que ku am jom la parce que fii mu toll jom moo ko fi yóbbu mais du ma yemale Balla Gaye ak mbër ok. Balla Gaye jërëjëf.